question démb bi ñu leen woon sa loxo càmmoñ la ndax bu ñu nee sa loxo càmmoñ mooy nit ki sa loxo bii mënoo koo téye tamit sa loxo càmmoñ kon réponse bi sa loxo càmmoñ la woon. kon gars yi li ci tey nag laa bëgg nag ma ñëw ci ak yéen bëgg ngeen a xam tey lan moo xew ndax réponse boobu jàll na kon sama caméraman laa wax mu topp ma ñu duggaat ci sur le terrain bi indiwaat gars yi seen émission cax waaye tey ngeen di jommi waat de. taala bukki la béy ak gerte nga waree na traversé ci gaal gaal gi ñaari place rek la am yow naka ngay mën a def ba yow du lekk béy bëy bi du lekk gerte gi te place bi ci gaal gi ñaari place la. waxaatal ma dégg. benn bennal ko. sëñ Fallou hmm. bukki la bëy ak gerte nga waree na traversé ci gaal pour yóbbu leen te nag gaal gi ñaari place la am. yow naka ngay def ba bukki du lekk bëy bëy bi du lekk. ay fa bukki bi rek yóbbu bëy bay gerte bi waaw. léegi léegi boo koy bay léegi bëy bi léegi lekk gerte bi ah loolu mooy coow li de. non buggi buggi laa yóbbu moom laa njëkk a yóbbu quoi. Ah, waaw léegi boo buggi boo ko yóbbu léegi moom ak kan nga yóbbu. ah buggi moo gerte bi laa moom ak gerte bi. waaw léegi après léegi nga nga nga bàyyi fa bi. bàyyi fa béy waaw léegi la ma la nga bëgg a yóbbu léegi bukki bi ak gerte gi ta boo retourné war ngaa a yóbbu bukki bi ak kii bi ak ak béy bi bukki bi day lekk béy bi. laa fi bàyyi bukki bi da fi bàyyi bukki bi. bukki bi laa fi bàyyi. waaw gi laa yóbbu ak béy bi. waaw gi nga dem jëli léegi bukki léegi war ko indi boo waa damay rey boy bi rek. waa damay dibi ko rek. gari waa dama koy rey dibi ko rek. dibi ko waaw bu fekkee gerte gi léegi nag gerte yóbbante la nag. nga gerte gerte yóbbante la boobaa borom mooy ñàkk rek. non ñoom ñëpp laay boole fa yóbboondoo moo gën a nekk parce que ñaar lañ la may pour nga yóbbu ko. ñaar lañ ma may pour ma yóbbu ko. waaw léegi dama yóbbu boy bi ak gerte gi rek bàyyi fa bukki bi. bukki bi amul njëriñ amul sens. léegi yow boo léegi fekk béy léegi leen gerte gi la ma ñëw fekk bëy ba lekkee rek li booy bi wax rek damay rey bay bi de dibi ko mis bi ko. waaw ñoom ñaar ñëpp duñ xiif. <laughs> moom. léegi ñoom ñaar xiif. Ah. waaw ñoom ñaar ñëpp danoo waroon lekk war a lekk ba suur. waa nga ànd ak ñoom xam nga bukki moom ragal la bëy tamit ñemewul. xanaa ma jël gerte bi rek. waaw bëy lekk ko. bëy lekk waaw. loolu de laa xalaat.